إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك إني أخاذب النصارى man nek ci aduna bi di ñu bayyi xel ñu ngi nuy baax di leen ziyaara euh, di nuyu ak ziyaar bi Cheikh Sidi Moutar Mbacke nek ci Cheikh Khadim di ko ñaam yag fi lol te ak ñew seigne touba ak yëpp comme ni nga xamne non lañ ko waxee woon sànq rek euh, ci sank ci gannaaw kon ñi ngi ci bisu xess de fi Touba Italie rek ren mu nek le 23 septembre 2017 fi ci Malpensa Fiera ci Touba Milano ci dëkk bi nga xamne mom moom wax Busto Arsizio Euh, ñu toog na ak kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore yi di les soxaafiye muy commission culturelle bu bisu xasida yi euh, di Serigne mataar Sey moom nag yàlla def mu féete fa la ca Touba Toscana ne ci kuréelu Touba Toscana waaye nag mu nekk kenn ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir commission culturelle bi nga xam ne moom la Serigne Ñaan Diop jiite ak Serigne Saliou Ndiaye ñoom ak euh, mbokk ñi nga xam ne ñoo ci nekk yëpp. kon sëñ Matar gannaaw bu la nuyoo baax rek ziar la di ci bis bi nga xam ne ci lañ nekk tey jii. di bisu xassida bi ci 13e édition muy fukel yoon bi ak ñatt ñukoy amal ren ji ci 2007 bi fi tuba milano xamna ba lañ dugg laaj rek dañ lay jox kon nga nuyu ak mbokki téléspectateur yi nga xamni ñi ngi sétane ak bayyi xel ci aduna bi señ matar a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min amazati shayatin wa a'udhu bika rabbi yahdurun waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sëriñ Mbacke ñu ngi lay delloo nuyu di la delloo ziyaara bu baax a baax ni nga ko waxee kon mel na ne ñu ngi ci bis bi nga xam ne mooy bisub xasida bi tey di fukkeelu yoon bi ak ñett ñu war a amal fii tey waxtaan incha kon sëriñ Mbacke ñu ngi lay nuyu di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñoo seetaan incha allah kon ñu ngi lay déglu bisimilah. Euh, jërëjëf sëriñ Matar ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne nuyoo ngoo tamatale ñu lay fayum nuyoo rek. kon si Matar kon ñu dikk rek ci ay laaj yoo xam ne dafay jëm ci sëriñ bi naka la jàppe woon alquraanu karim ci biir xasida yi euh, mel na ñett ñetti tomb lay doon sax waaye boobu mooy tomb njëkk bi bi topp rek mooy ndigal yi nga xam ne sëriñ bi doon na ko joxe ci alquraan yi lu mel ni muy waxee naan kullu muridin bi yelloos fal yu dim tilaaw alquraan li xëyr zikrin xatu si mel ay ndigal la ak li nga xam tamit mooy tax nit ki tamit ñaare du sawar di jàng alxuraan waaye xam naa kon dañuy njëkkee ci tomb bu njëkk bi rek. Mm-hmm. muy sëriñ bi. Mm-hmm. naka la jàpp alxuraanu karim ci biir xasida yi. Mm-hmm. ndax ku xool xasida yi day mel ne sëriñ bi ci biir alxuraan la ko euh, la la la la ko la ko génnee ndax dañuy wax ne xasida yi. maanaam comme ni ñuy wax de diggante diw rakkal dafa mel ne ko noonu demee ak alxuraanu karim waaye ndax mën nga ñoo tënk rek euh, sëriñ bi naka jàpp naka jàpp alxuraan ci biir xasida yi sëñ Matar. waaw jërëjëf sëriñ ci laaj bu am solo bobu laaj nga laaj bu am solo moy Cheikh Khadim radhiyallahu anhu wa ardaahu nak la jappé won alquran te loolu ñu war ko mëna génné ci biir qasida yi muy yo xamantene bi né bind nako bay fi waye lata lolu xam nga jëmmi Cheikh Khadim radhiyallahu anhu wa ardaahu japp gi mu jàppoon alquran mom dafa feñon ci jëmmam feñ ci doxalinam feñ ci wa këram feñ ci ñëpp suma né jëmmam bo xolé jëmmi Cheikh Khadim radhiyallahu anhu wa ardaahu da nga gis né jëmm ju dëppoog ni alxuraan wax ni noonu la jullit war mel dëgg mi noonu taxaw su ma nee ni ko ak njabootam jàppee da ngay gis ne njabootu Cheikh Xadim radiyallahu anhu wa wàllu soxna yi wàllu góor ñi koo ci gis rek da ngay gis ne kaamil alxuraan buy dox ma nga ne di dem jëmmi Cheikhul Xadim bi ñëwaat di wanewaat alxuraan ci aw melo muy moom eh, melo yi nga xam ne moom la yore woon nga xam ne yegg na ci alxuraan fu mu toll sax moom la daan yore yeggoon ci itam di kaalawoo itam nga xam ne kon foofu la ko tooloon moom alxuraan nga xam ne kon moom bind na ci lu bari ci ni nga xam ne noonu la ko jàppe woon bokk na ci yi nga xam ne Seexul Xadiim radiyallaahu anhu wa ardaahu jàppe woon ko alxuraan te wax ko ci biir xasida yi boo demee ci xasida gi nga xam ne moom lañ tënkee abatasa moom mi ngi wax naan wa aidullaha ala aqdil kitab bi xidal matil Mustafa baabi sawaab maa ngi wëlërante yàlla sama borom tey ci jàpp maa ngi wëlërante sama yàlla sama borom façon moom kóllëre ci jàpp téeram bii di alquran te xam nga ne kóllëre day lu am solo day lu am solo ndax borom bi subhanahu wa taala moom ma wax ne wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'ula te say xolam daa mel ne li mu wëlërante moom def na ko ba mat sëkk ci buñ ko xoolee waaye nag ci ci naka ci naka lay wëlërante moom ci alquran jàpp alquran mu ne bi xidmatil mustafa waaye ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne baa bi sawaab mooy buntub jub kon ci noonu moom ci la jàppe woon alxuraan nga xam ne kóllëre gi kóllërante woon yàlla ngir jàpp alxuraan da koo matale bu matale sëkk moo waral foo dem ci nga xamante ne bi ne Cheikh Xadim radiyallahu anhu ardaahu moo ko sanc lu mel ni ki Touba wala lu mel ni ki da ngay gis ne bis bu ne danañ fa wàcce lu mat juróom-ñaari kaamil wala lu ko ëpp ci ni nga xam ne noonu la Cheikh Xadim di dundale alxuraanul karim waxaat ne itam a lii anna i'tisaaman bil kitaab wa bi xadiithil Mustafa huwa as-sawaab feeñ na leer na naññ ci man ne mooy ci alquran kat mooy ci alquran dëgg-dëgg mooy bi yàlla bi ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi moom mooy ak njub dëgg njub dëgg foofu lañ koy peese ci nit nit bu ñuy peese ak njubam dañuy xool ban place la am ci alquran naka la ko téyee waaye bu noppee na dañuy xool nag moom ban place la am ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci naka la ko téyee woon Seex Xaadim nag moom euh, nee na moom loolu leer na ci man naññ ne téye alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo di ak jub dëgg te gis nga ne téye woon na alquran téye gu mat sëkk téye gu mat sëkk lool teel koo mokkal lool itam teel ko bind lool waaye di ko saxal fu mu toll kon kooku bu nee zahara li euh, bil kitaab wa bil hadiis al mustafa wa as sawaab day neex a gëm lool waaye jëlaat mbiram yëpp itam jëme ko ci alxuraan ak sunna itam fi ne boo demee ci xasida wakaan waxaane xafidun qaahirun jalla maaniu ji ñuy faral di jàng xam ne ñëpp min nan ko dégg nga nam ci wax ilallahi bil qurani wa sunnatu allati adat adat ni saraftul kulla wal qalbu qaashiun ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci laa jubale sama lépp xadat ni saraftul kulla wal qalbu qaashiun ci laa jube ci laa daal di soppi sama mbir yëpp jëme ko ca kon kooku dañuy gis ne léppam ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi da koo daal di joxoon alxuraan amul lenn lu deseel alxuraan boo gisee jëmm ji xam ne jëmmu alxuraan ciy dox mi ngi nii. kon dafay mel ni kii murit bi bu déggee Cheikhul Khadim wax lii ci xasida yi nga xam ne ñu ngi koy faral di jàng loolu am njàng doon ci moom njàngale ci ne ndege xasida yi kon du yëkkati rek ndax xasida yi kon du durus rek waaye am na lu sëñ bi dëxën ci biir muy xam-xam dëgg ne ci biir boo xam ne waran ko mën a génne euh, jëriñoo ko bu baax a baax loolu lu jar a bàyyi xel la. niki noonu ba tey alquran alxuraan da koo jàppoon jàpp goo xam ne moom remplacer ak dara amul dara lo xamne dana ko remplacer ak alquran quran rabbi la abghi bihi badalan Duma remplacer ak dara alquran amul lu ñew lo xamante ne bi ne dana ko xol mu gëna kawé kawe dedet alquran mo xasse japp rek mom la japp duma wut dara la mu koy remplacer koku may ki japp alquran deug deug bihi aqulu ila rabbil wara ulama neena borom xam-xam bi ci ñom laay jappé seen loxo mat leen bay tegg leen ci yalla suñu borom ci alquranul karim bu ne woon ci lay womat juhalaaw yi wala ci lay womat nit ñi waaye borom xam-xam yi la wax te loolu da ngay gis ne firndeel na ko ay yoon yoon ndax bari waa ku ñëw ci anhu wan ci alquran ju man te day mujj jébbalaat boppam Seexul Xadim radiyallaahu anhu ardaahu ànd ak moom kon bu ne bihi aqul ila rabbil wara al ulama day neex a gëm lool ni ku mën tafsir ci gàttal rek nekkoon na ci boori Kawlax gee ku ci bee rek ci boori Kawlax defe ni koo xam ne ku mënoon tafsir la wàllu alquran lool te doomam rëccoon ñëw ci sëriñ bi waaye day bind leetar euh, doom ji ak sëriñ bi di ko wax ne ko sama doom jooju nga téye foofu de xaw ma loo ko téye waaye du alquran lu la ne ndax bu dee alquran maa la ko dàq bu dee tafsir la maa ko dàq waaye ba leetar bare bare nag sëñ bi daa mujj woo doom ji ne ko kaay dellu ca sa baay daa mel ne leetar yi naa bari daal di bindu leetar nag jox ko ne ko boo dee na ma na ñoo ne ko ah borom xam-xam nga demal wóor laa mën man ci dara waaye keroog ba muy dem dafa am ñu yàq xelam ne ko foofa loo fa lekk ca ngay des tax mu des defar baraay bu bari defar lu mën a xew loolu bari waaye bi ñëwee gaarum njaareem bi rek ci lañ ko waxee ni ko ana sëñ diw mu ne maa ngi nii ñu ne kaay wuy sëriñ Tuubaa mu ne laa kii moo njabar mu def ba xam ne maa ngi ñëw <laughs> waaye gis nga ba mu ñëwee baraay bi mu indi woon nanguwut a lekk ci la doon jéem a ñëwee sëñ bi da koo daal di dalal mi ngi sol dara yooyu nga xam ne ñaareel ñu am daraja dëgg ak barke moom la faral di sol. kaala kaala gu rafet itam bi ko sëñ bi wooyee boori takusaan bi mu ñëwee daa di fax ci digg basang bi diglu sëñ bi ñu waxtaan sëñ ko aaya sàngam ak sàngam ni ngeen koy mu ne ko nangam ak nangam mu ne ko des na lu bari wax ko ci ay maanaa yu bari yoo xam ne xamu ko ci biir alquran def ak noonu sëñ ba sëñ bi ne ngaa dem. ba suba nga ñëwaat suba ga ba muy ñëwaat newoon naa la bii ñëw dafa kaalaw woon soloon daraag yëpp waaye bee bii ñëw yaram wi daa dee forok la daa di sol bi ñëwee it toogu ca basang daa daa toog ci suuf nga xam ne moom waajal na ngir jébbalu kon moo tax ma ne la bu nay bihi aqudu ila rabbil wara al ulama al ulama day neex a gëm kon kooku mooy ki jàppoon alxuraan dëgg dëgg dëgg niki noonu it Seex Xaadim dañuy moom it amul benn àndandoo bu dul karim loolu firndeel na ko واحنا قتي قصيدة جنها خمنة مما أسير مع الأبرار حين أسير وظن العداء أني هناك أسير واحنا ني رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي صاب عن الدوري مما القرآن الكريم أجي أنت بصلى الله عليه وسلم وأصحابه أصد الأعادي أداره صعب أن تبصلى الله عليه وسلم نك نم نيجي جاين لسما نوني خان نم نيجي نرمل كنت نيجي سنم سوكان برادلانو أرداه القرآن لدان أندل فمجم فمن جمرك القرآن لدان أندل Euh, ànd ak alxuraan nag nekku ne mooy nga ànd ak kaamil bi nii rek loolu da caa gàtt waaye moom ni mu àndee woon ak alxuraan loola gën naa kawe noona ànd alxuraan ci di ko jëfe ànd naag alxuraan te di bàyyi xel li mu wax ak lu mu sori sori njaboot gi ak lu mu sori sori njaboot gi nekk ci tukki beeg yëpp teewul alxuraan daaw ko manqué benn suur loolu mooy rafiqi kitaabullaahi dana yore kaamil bi waaye la muy digle moom lay jëfe melow boo ko xoolee xam ne melow wa nekkoon ca moom ba muy nekk ca njabootam ca wàllu alquran melowoo moo nekk ci moom ba léegi kon kii mooy ki jàpp alquran dëgg-dëgg kon Seexul Xadim daal ni mu jàppoon alquran gën a gudd la waaye sëñ Mbàkke kon ñu taxawlu foofu ci waa laaj boobu incha allah jërëjëf ah, jërëjëf sëñ Matar ci ci ci leeru gu am solo boo xam ne andi nga ko ci la Sëriñ Tuubaa jàppoon alquranu karim waye bati seigne Matar dañuy gis fu Sëriñ touba di waxe nan man la ne rabbul alamin wa khadahu lil amin wal amin ci xes dégg nga xamne mom la commencé ci rabbi ahmad ala muhammadi lol timit da fay melni kon sëriñ bi kon yëmu ñu jàpp alquran rek waye timit suñu borom sa da ko ko mom lo won maam da ko ko mom lo won waye timit gis na batay tey fu mu waxee naan yaa kitaabal karimi anta abibi wa xablu xoma ba ne kunta tabibi batay lol timit nak nga ñu ko mën sara maam nak nga ñu ko mën léré ci loolu mu wax ne man la ne rabbul alamin wa xaadu lil amin wal amin loolu tamit waaw ndax loolu dafay mel day duggaale tamit ci ndax jàpp alxuraan ba alxuraan suñu borom mujj jël alxuraan jox ko Jibril moom la wóolu ngir mu andil ko mu ne ko kon jox naa la ko mu far ko moom kon loolu tamit day mel ne kon euh, laneen la kon suñu mataar mhm. jërëjëf sëriñ Mbacke indeeti nga lu am solo muy Cheikh Khadim radiyallahu anhu wa ardaahu bi mu jàppee alxuraan ba noppi di ko jëfee ak di ko jàngale جل ملهم ويب دفكم من القرآن لكن بعند رجلي أنا كو القرآن إندين لولو لولو أم صلاة خمجة برام بسبحانه وتعالى دفر لي وحني من عمل الصالح فل نفسه لباخ بوك جفي ويا كي مم تيت كان كنا كرك لانغ باي مم جي جوب مرة شو خدم بندفن القرآن من أبن القرآن دا وبتكون مجيوار نك سن برام مم لا كوكو دفن أوقع نلاقي بيروي تي ربي أحمد ملكنا القرآن وَأَيَّ bi gëna yéme tamit bi nekk ci minanul bàyyil xadim fi ne ko malaktan alqur'ana wal uluma mom lo nga ma qur'an ak xam-xam yi waaye nafaxta bil jahula al alima kon koko dañuy gis ne mom sun borom subhanahu wa taala da ko moom la al qur'an deug deug yegg sax ci xam nga nit lim gëna bëgg moy jëmum ci ni da bëgg jëmum lool bu sañon fut noy lay tuddi gis nga ñun ñi nga xane desa tek deug deug al qur'an place lal yu baax la ñuy defar de waaye soo xam masaan defar ab lal ba pare ay alxuraan lay jël kaamil teg ko ci waaye tegu ca digg yam da ci yam waaye da koy parfum ba mu xeen lu neex mu toog na di ko tagg naan ko yaa kitaaba karimi anta xalili eh, wa habibi wa xablu kunta li tabibi loolu di léegi lu yéeme yoo xam ne bari na fu mu ko wax ci ci xasidaam yi boo demee ci jasbul xulóob yi wax na ko fa alxuraan mooy xaritam wa xalilun wa habib li mo xam yan li lii xan tabib bi yuhibuni labib lu am solo lo xam ne war nañ taxaw baye ci xel moy sama moy sama xarit wa habib moy sama soppe li mo xam yan yéen doyna ma seuk li an tabib doyna ma am médecin su ma soxla médecin rek alxuraan lay lay daal di jël duma dem di faju ci fen ta lol borom subhanahu wa taala wax nako neena wanu nazlu min alqurani ma huwa shifaa wa rahmatun lil muminin waye li gëna jara jar waxat bi yuhibuni labib tay ji ku am xel ku ne Dengan nga bëgg sëriñ Tuubaa ngir alquran li tax ma wax la loolu mooy xam nga Cheikh Xadim fi mu fekk alquran ak fi mu sun mag ña daan nañ jàng alquran daan nañ ko mokkal fexewaan ba fexewaan nañ ba def seeni ba am ay mana mën bind di beqi bind kaamil fexe ba waaye nag waggar gi dafa des waggar gi dafa des waggar gi ni mu dese mooy bu njëkk boo masaana mokkal alquran rek daanaka léegi ni ngay def di wane na léegi yow yaa yaay kàng mi yaay kàng fóore baat yi tamit dañoo am ay baat alxuraan yoo xam ne dañoo am nuñ ko tudde woon lu mel ne baat xëyaata xëyaata xëyaata li ma tuuxa doona ñoom danaa wax naan tudduma la tudduma la xeeti waxin yooyu nga xam ne sooxari moom gis-gisam sori woon na foofa waaye bi ñëwee nag ca ba muy topp àlluy beq ya da leen daal di xamal ni lii de lu kawe la doomi soxna ju bind alxuraan jàng alxuraan ba mën ko mokkal ko bind ko te du ko xool ñu ne ko waaw maa ne am na lu ko gën a kawe fexe ba xalima ak suñu borom bu dee bind kiic kiic ga nga mën koo dégg kon kooku moo jox cër alxuraan dëgg-dëgg moo tax mu ne bii yuhibbu nii labib yatlubu xam laqami kon euh, Sëriñ Tuubaa ku am xel rek di nga ko bëgg ngir alxuraan jërëjëf sëñ Mbàkke euh, jërëjëf euh, sëriñ Matar Sey ci ci ci leer am solo yooyu ba tey it sëñ Matar gis nañ ba tey sëñ Tuubaa fi mu waxe naan inna tilaawatal kitaabi sarafat li xayri dur yàlla ñu daa fan sarafat ba tey bayit boobu kon dafay tekki ne kon alxuraan euh, dafa weex tàll mm-hmm. maam sarafat amul benn mm-hmm. taas mm-hmm. waaw kon mu mel ne ndax mën nañoo xam la moo tax Sëñ Tuubaa jékki-jékki rek wax loolu ne maa alxuraan dafa weex tàll euh, maam daa amul benn taas ndax bu ñu xoolee li nga wax sa biir wax bu njëkkoon euh, am na fa sëñ laat di nettalee bi sëñ bi mm-hmm. nekkee ci njaareem mm-hmm. ba am ku tukki woon xëy na wala mu doon ziyaar sëñ bi bu ñëwee mm-hmm. indi sëñ bi gura bu mu ñëwee bi ne ko loo jublu ñu ne da ngaa yittewoo gura lool sëñ bi daan ne est-ce ma bëgg loolu yàlla yonent bi ak alxuraanu karim euh, euh, a gën a indi tamit ak mbokk yi xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci ci ci ci ci loolu day day lu am solo loo xam ne jar na laaj bu baakha baax xam nga alquran mom mo ni mel ay resultat am da koy genné ngay gis nam lu weex tal la waye nak moy li nga xam mom moko fegal ay noom euh, li nga wax léegi da ko firnel jang alquran kat jang alquran wa tilawa na tilaawaat alquran li sarafat mo nga xam moma mooma soppil samay non li yaa fan sarafat ba nopi na ñu di soppiku daari dem wolbitiku jaar ci ginaaw daari dem kon alquran mom loolu la ko defal. li waral alxuraan defal ko loolu nag mooy da koo mus a bàyyi ginnaaw ni ma ko waxee woon ci li ci ci ci li xaw a jiitu da ko mus a bàyyi ginnaaw moo tax alxuraan bu ñu ñëwee tamit moom it da koo daal di défendre ci ay noonam défendre nag ko ci ci ci zahir défendre ko ci baatin défendre zahir ñun ñëpp xam nañ ko ci bi mu nekkee ci géej gi ne waa ahlu badrin ñëwoon nañ fa di ko jàppale bu baax a baax loolu défendre zahir la te ci alxuraan la ko la ko amee défendre baatin gi nag mooy manam non bo xamantene bi ne djublu nga serigne bi gis lola dal to xamoo lan la wala nga gis jëmmi serigne bi ni xamne ki amna am ñeneen ñu and ak mom te mi ko ci alquranul karim kon euh, day lo xamantene bi ne su nga topé lu gudd lay doon waye lima la ci mëna wax rek moy fi ne njaareem Basir day netale ci minanu baye khadim ne ndiarim masnan fa indi jëmm jo xamni tuwab la du doy war la te booba ginaaw yóbbu nañ bi ci géej gi war ko war ko gànnaar yóbbaat ko jolof indi ko njaarim nag laaj nañ xam kan la découragé googu ne ba léegi waaye tubaab bi ñu indi day ku soxor ku weex xat ku ñàng noonu ko sëñ Mamadou Bassir nettalee waaye tubaab bi nag lenn nekk ci moom moom agent secret la dafa bëgg a xam la mooy sëñ bi dëgg dëgg dëgg nga xam ne moom dëgg rek lay wax waaye waaye nu ko neex lay ñëwee ci kër sëñ bi waxtu ko neex la fay ñëwee di koo xam ne yow nit di su ne waxtu ko mën a ñëw ci yow lo dilu yema nga xamne bu da ñew sakkar bu massa gis da koy daal dag jall mbolo lay andal waxtu ko neexi lay ñew ci señ bi waye neena ki daal xamna ni xel ne mom dara ñoru ko loolu yalla yonenti bi alquran ko ñor yalla yonenti bi laneen ñoru ko gis naa ne te mosuma koo seeti ci bettel wala leneen fekk muy def leneen ben duma ko fekk sax mu tok non rek man na yore kurs wala muy jang wala muy jang alquran lol di lu yeme sede so xamanteni ben benn sab noonu moo ko seede ci sede yi te noonu boobu loolu la seede ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wa ardaahu jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf ak bëgg sëñ Tuubaa ak yonent bi moom dafay daal boo xoolee xis dëgg muy alaaman la yee rek da daal di gën a leer ak yu bëree bëree bëri ndax ba ci alaaman dafa mel na am na fi mu wax naa alaamun alaaman hudaa abaa duxulu jinaani daxilan turi nee na ara nee na dafa araam nit di dugg àjjana te fekk ne da ngaa noonu Yonent salaam maam ku Yonent salaam daal araam na ci yow sax nga dugg àjjana kon <laughs> loolu rek day mel ne kon doy na sëkk signature boo xam ne euh, rawatina boo jaar yéen ab yaay yi nga xam ne mi ngi seen xës de Sëñ Matar euh, kon xam naa ne rek euh, li nga wax ci alxuraan diggante alxuraan ak sëriñ bi mel na ne sax du du koo jeexal ndaxte daanaka boo xoolee lim bind lépp ci alxuraan la ko la ko la ko la ko seppee ci la ko jukkee kon dafa melni kon so ci wax sa day melni day melni geej ba do xam sax foy commencé ak foy foy foy yam ci metal kon kon xamna tom bobu rek dana jokkoon sa cadre gu mujju bu de kon ñu jall ci ben tom bi inshallah xeyna na kon sa cadre gu mujju xeyna na bu dee am nga ben ben ben temps xaar wala xeyna na ben ben benn bo ci def ci ci diggante seigne touba naka la jaar alxuraan bi xës da xeyna sa cadre gu mujju tom bobu Sëñ metal waaw jërëjëf seigne Mbacke ti lu am solo lo li nga laajaat xamna dana bokk ci li nga xam ne taali bi war na xel tamit mu dana sëñ bi jàpp gi alxuraan yi mu doon jàpp waaye seetantal dafa am solo alxuraan ngir mu war ay kumpa foog nga koy seetantal wara bi wax ci des bu ne ko ya xayra munzalin yuri ma gaaba ma gaaba daa tadabburi kan lay wan lu lu lu fàddu daa tadabburi kee seetantal rabbi yu safi fikari ci wala lay yàlla sama borom di khalat samay xalaat bi ko bi tuhami kon ni mu jàppoon alxuraan yëmu ci jàpp gi rek waaye setantal gu mat sëkk la ci àndaloon moo tax boroom borom daan ko ci jox xeeti maanaa yoo xam ne képp masaan a ñëw ci moom yaakaar naa ne euh, euh, euh, maa yi ga ca gànnaar dégg nga ko ba tey nam demee woon ak nam ko leerale yu mel noonu loola nag tadabbur moo koy mayee kon daanaka tomb boobu mën nañ ko tëj foofu ni alxuraan moom ku ko jàpp rek foog nga ci am tadabbur gu am solo goo xam ne mënut a ñàkk jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Matar kon mbokk yeen ñoo ñi bayyi xel rek ci fi ci Touba Milan ci pense faire bi su de yi ñoo ngi tok Serigne Matar sey di kenn ci jëwri ñi nga xam ñoo commission culturelle bu xess de yi Touba Italie kon Serigne Matar xamna naa ko ñu jaar ñaal tom bi rek euh, muy ndigal li nga xamne ku tedd gi di Seexul khadim joxe won na ci alquran mu jëm ci mbolem julit yi rawatina yi ndax euh, nima ko wax sank rek amna fu mi ne kullu muridin bi yelloos fal yu dim tilaawata quran li xayri sikrin xadru sim loolu kon ndigal loo xam ne kon sëñ bi da koo joxe dafa mel ne da ciy xaw a dëgër tuuti booy setantal araf yi comme ni nga wax sànq booy def tadabbur dañuy léeg-léeg damay wax ne ñu bëri dafa mel ne bayt woowu sax dañ koy xaw a jële bis des bi mu wax naan kullu muridin bi yeloosu yashadu fa innahu min asa mubahadu ñu bëri dafa mel ne boobu sax dañuy gën a téye ci bële te dafa mel ne damay wax ne man sax bii am neexal la waaye bee mooy soññee bi <laughs> waaw kay kon bu fekkee kon ñaal tom bi rek mooy ndigal li nga xam ne euh, Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ëllëg joxe woon na ko ci alxuraan ngir ñu gën cee suubuwaat baax a baax a baax rawatina boo ñu jëlee béydoo xëy na ak yenn abyaat yoo xam ne dana méngoo ak yooyu sëñ Matar. waaw ah, jërëjëf sëriñ Mbacke ci ñaareelu tomb bi nga xam ne indi na ko nga xam ne mooy. Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa ardaahu digle gi nga xam ne digle woon na ko murid yëpp ñu war a jàng alquran te fonk ko damay faral di wax ni ab murid moo war gën a fonk fonk jàng alquranul karim murid moo war gën a fonk jàng alquranul karim ngir Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa ardaahu mi nga xam ne mooy seen wasila liggéey bi nga xam ne def na ko ci ak soññe yu am solo yi nga xam ne soññe na ko ci digle yi nga xam ne mi ngi ko ciy def saa su ne nga xam ne booy wër mbindam yi rek gisum mbind ba jàll te digluwu ci alquran rek nga mo alquran mom la bëgg nit ñi di jang jàng te di ko ndax ci la lepp nek bari na lool lu mu ko digle ci bir mindi bo démé ci téré xam-xam yi dang ko cay fekk bo démé ci bir xasida yi dang ko cay fekk itam ba ci kalamam yi nga xamné tombe yi mu daan def it ko ci daan digle mom alquran bokku na ci digle yoy nga xamné daan ko diglé bayd yi nga xamné wax wax nga ko légui muy bayd wu am solo biñuy ñëw rek ma ngi wax naan démé na ñu bari kullu muridin bi yalladhi yas'adu moo leen gën ñor wa innahu min al adha ba'du waye murid li mu ñëk a xel war ko xam rañat lako moy lan moy ataluq li kulli man bi an naja min kadari dunia wa fi yawmin naja lo lepp amna na mais lan moy ataluq xam nga mbir bu ajoo ci mbir la nga aju normalement fam jam jëm dafa nga wara jëm fekkee da nga aju ci mbir la nga aju fam jëm fa nga wara jëm ginnaaw da ngaa aju Cheikh Xadim radiyallahu anhu ardaahu nag mu digle jàng alquran bul bul jël rek kullu muridin bi yelootu yasant waaye jëlal tamit kullu muridin bi yelootu fal yu dim tilaawatan li xayri dikrin qadru sim xayri dikri bu nga ko waxee moom mooy alquran bépp murid boo xam xamante ci man la wéeru saxal nay saxal la wax de saxal waxuma la léeg jàng ko tey boo léegee doo jàng boo amee jot déedéet saxal fal yu fal tu dim na saxal jàng alquran nga mom gisul ne alquran nit da wara bay ba amuk jot rek dor ko jang dedet way da wara bok ci programme nit ki mu am ab waqfom mo tax soo dem ñi fi e, jitu won tam nekkon ak ñom am na waqf yi mu len daan jox ñaar fukki isi tam ay alif alif laam inama sabiru nga xane sax euh wala tujaadilu talinu ci ak khasira mooy allah min kulli karimin akramahu lool lo rek lay tetale ñet yoy waqf yoy te señ daan nan wax nan képp koy faral di jang do manki dépasse mu ñaar fukki isib yooyu amaat beneen waqfu nag boo xam ne waqfu bu yéeme la ñu koy tënkee baama yuli sasuma baama yuli sasuma nga xam ne sëñ bi da cee tënk alxuraan ni nga war a jànge alxuraan semaine bi semaine bu nekk la ngay jàng bis bu nekk la ngay jàng ba bu bisub samedi ñëwee kaayal bi day daal di mat bu dimanche nga daal di tàmbaliwaat kon loolu mooy faltu dim daa war a sax kon wóor doon boo amee jot rek daraan wax naan na ngeen di taxaw jàng alquran guddi ak bëccëg nga lii dana woon faltu dim waaye bii nag dana moom guddi ak bëccëg walaazimo tilaawat alqurani fi leyli wa nahaari bil imkaani guddi ak bëccëg di leen taxaw jàng bu leen ko bàyyi mukk ndax alquran ci la lépp nekk moo tax boo demee ca masaalikul jinaan tamit dala fay daal dénkaat dénkaane boo xam ne dafay mel ni kon dénkaane bi wàcc ne ko bu mu gën a suufee mu yow lu mu deedee xanaa léegi kon lu mu deedee loolu lay tekki adim tilaawatan dal kitaab na nga saxal di jàng alxuraan ji waaye nag walaw salaasatan xanaa lu mu dee dee benn ñetti isib war nga ko mën a jàng euh, par bis minal ahsaab walaw salaasatan minal ahsaab chaque jour del def boo xëyee lu mu dee dee nga jàng ñetti isib fi mu ne li yéeme ci murit mu war di gën a jàng alxuraan mooy ñi nga xam luy turuxu dëgg luy yoon fi mu ne tarixa boo dem boo demoon tey ji bu ne laa foo bokk boo ne la tarixa murit dana la laaj yow lan mooy seen wird boo doon euh, tey ji teg sart wird murit jang alquran da ci bokk kon dañuy gis ne walaw salaasata min al ahsab mun ci ñak jang alquran kon mënta ñak ci am murit te wird day lu am solo ci biiru yoon nak waaw xëy ñun khasside yi eh, moy def ci ñun lo xamne rek mo ñi ngacc mo ñi defaraat waaye wird mënta ñak ci aw yoon motax mo ne la adim tilawatan li dal walaw salaasata min al ahsab fi kulli yawmin waxuma la tay nga jang ni mako waxon waxee chaque jour doona hijraam bu ko sax bayine tekko na le da nga gis sama kalaas gi tek ne ab kamil jil mu fënd jël fu gàtt <laughs> ta dañ ko ta dañ ni wax ne xey suba rek yër alquran loolu dafa bax barke la même mu mënta jang xeyal yër ko boo dee ko mënta jàng waxuma laa na ngay ko meuna jang rawati na nak soñe bu am solo bi mu defaat muy ñi nga xamne dañuy sakku xam-xam comme ni nga xamante non la baxo loolu nga xamne bo boo jang rek jang mi day neex nga tàmbalee deg li ngay jang man nga tok weer do jangati alquran motax mu le ne kama talabatul ilmi lahu dawantima bu def non mukk ñi jang xam-xam dañuy mujj dañuy mel Al dañuy teg ne alxuraan ne damay jang xam-xam ba nopi dedet lolou upp na def te lolou bu bu amee day waral nit man war maral mu fëtt alquran waaw ta al yalla sun borom kat subhanahu wa taala dana laaj nit ñi nit dana laaj yalla sun borom li tax rabbi lima hasartani ama wa kuntu basairan xaala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha nasitaha li tax nga may pang pang moy jeun nit rek jëmale ko fenn fagnako sañ fa jëm te duko bañ ama ma don ku gëmba waxadu kuntu basiran ta pourtant aduna dama dan gis yalla ya sun borom ne la kadalika atatka ayatuna fa nasitaha dan la inna sun alquran ji nga fatte ko wa kadhalika al yawma tunsa tay kon dan lay fatte motax kep ku jang alquran ba mokal ko di jang xam-xam ëpp nga tek alquran jene terit lol du xalat muk man nga ko boole sa jang jang xam-xam ti jangale alquran tek ci sax ne la ku bëgg a jege yàlla ya te jege yombul ya jege yalla yombut dan la na dijang saxal di jang alquran wa man arada alkhurba min mawlahu falyaqra alquran la qurana alquran jang do la fàttali sa borom kon na saxal di jang alquran ko xam nga da ngaa bëgg jege eh, sunu borom waxane tamit xultu wa man yurid rahmaani falis bidan tadabbur alquran kep ko xam ne bëgg nga ngërëmal sunu borom te yombul ngeureumal yalla yombul na saxal di setantal alquran setantal alquran na saxal di ko setantal eh, waxon na kenn ci magña neko eh, man xara alquran bi taaddubi asamahu munsiluhu min wadabi kep ku jàng alquran ànd ko ki teggin loluy dako da laaj neku ne da ngay jang nii rek nu neex ngay jang déedéet waaye da laaj ay teggin da laaj ay teggin teggin yo xam da ngay japp ba sel djublu penk ni ngay nga toge ko wala nga ferenkulaayu nan nagn ko diglé sëñ bi bam waxe man xara alquran bitta addubi asamahu munzilu min wadabi dane kuy jang alquran ana ko ki teggen sunu borom mi wacc alquran dana na musul ci li nga xamne mom moy wadab wadab nak am na mag ma ko laajoon bi mu señ ma jaw paha nono ko luy wadab waye señ bi ci yene gi mu yene ñepp jam kendo am lu lor tax mu ko demal xol ko ci khamus khamus moy dictionnaire arab mo demé xol ko bu ñe mëna ko saul hal nyau. da la gis saul hal moy ñaaw mbir ñaaw ku ay mbiram ñaaw sëñ bi bi ñëwee wax ko sëñ bi sëñ bi nako dama la ko doon wax baña wax muy nekk ci yow nga xam bu ko waxon nako suul xaale man na am nekk ci mom way ma tax mu nako dama xoko ci xamus ko gis ne kon koku yërmande la ëmbaloon ñëpp mo waral mu nako dama xoko ci xamus kon jang alcorane ba lay kon dafa laaj ay teggin itam alcorane timit bo bëggee jege yalla sun borom bu baax de ko setantal setantal alcorane dafa am solo waaye jang ni rek di dem mom amu taxuko am njariñ waaye setantal gi itam daf ci am solo bu baaxa baax Mm-hmm. jàng alxuraan it nan bàyyi xel bi mu ne jàng alxuraan de sécurité la ci seytaane mi nga xam ne ko koo waaye sécurité la itam ci texee di day doo texee di sécurité la ci pexe seytaane kon man nga am sécurité ci seytaane te doo am curieusement ñi nga xam aju ci man ñep suñu borom muccel na len ci shaytan way amna yenen yu dess moy aduna banex bakkan ci mel non kon yoyu ngir nga man caa genn fokk da ngay jang alquran man genn ci pexey shaytan seytaan baxaat ba na ci jang alquran ba léegi ne ki jang alquran moy ki bénéfice deug deug ki bénéfice deug moom ki jang alquran nee ak texeem koku sur day sax loolu danaa la مثال misaal mu leer wax ne rabi alladi yatlul kitaaba rib xaman yaduumu daa saadatin koo xam ngay dem aljana fim toni bo nii li seigne bi wax day mel ne tey la ko doon wax fim ne bo xolete alquran yegna fo xamantene bi ne euh ñi nga xane ñokay jàngale ak ñi nga xane ñom ñokay jàng yegna fo xamne senu tedd nga senu texe ken dut ko weran fi ne bo demon touba ñi jàngale alquran ken gën leena tedd yoo xam ne gis nañ fi xale bu ndaw alxuraan génne ko ay réewi réew nga gis nañ fi koo xam ne musique rek lay topp nee na man musique moo ma génne fu ne waaye nag da ngay gis koo xam ne alxuraan moo ko génne fu ne génne ko réewam génne ko fu ne kon bu sëñ bi ne rabi alladi yatlul kitaaba rib xaman yadoomu daa saadatin maal aman day neex a gëm lool samo bi laa itaab ku taxaw alxuraan alxuraan moo lay womat ba teg la ci loxoy yàlla sunu boroom nga xam ne kon sëñ Mbàkke làcc wi nekk na làcc wu gudd woo xamante ne bii ne ci wàllu digle yi alxuraan moom sëriñ bi ni nga ko diglee bu nga ko toppoon rek mën nañ fee gën a yàgg waaye tamit dama ci xamat Suleymaan ba léegi alxuraan xashaba ilalan fa anqada soxba turam min xabaawaati kawtee fu tedd nga yéem na ma alxuraan téere boo xam ne rag-rag boo am mën na koo saafara moo koy saafara wanu nazalu min alxuraan ma wa shifaan waxoon naa ko léegi nii te moo xettali saxaaba yëpp itam ci xabaawa gi nekkoon kon loolu day xam nga digal nañu ba noppi waye li neex ci digal moy mo wax la yow lim la digal la fa ne lan la nga mën la demal fele rek bayal ma waye bo baye ba noppi lan ngay am nak lolo lu jara baye bàyyi xel ma la di rayba fi hudan li kulli man yattaqi naram bitahati kep ko koo xamante bi ne da nga bëgg mucc ci safan ba mucc deug deug bo déggee digle alquran yi yi nga xamne serign bi jox na la ko da ngay wat xel nak la nga cey amé te njug nga xamne man nga ko ci amé djuggi borom waxaane wa huwal huda wa siraatul mustaqimu lana fa kullu man aafahu laaqa shaqawaati alxuraan mooy njub gi nga xam ne mooy laaqa shaqawaati munta ñàkk boo fa bàyyi alxuraan foog nga dajeeg ay texee di waxaane tamit wa huwa li ahli daayi kullihimu mboolem ñi am ay rag-rag ci alxuraan la ñuy saafara woo am ay rag-rag ci alxuraan la ñuy saafara woo nee ci alxuraan la ñuy saafara woo wax naa la sànq ci sëriñ bi ni nga xam noonu la jàpp ay gi nga xam ne moo nekk ci suratul isra moo tax mu ne la wa huwa shifa li ahlil daayi kullihimo yun ji dawil aqli min xayin wa afaati ku am xel dëgg-dëgg alquran da lay mucc la ci ay gàkk-gàkk ak mbewte loolu fi ne misaal mu leer ak dem na ci fi ne boo doon gis mag ñi màggat di naat gis ku moo tax yun ji dawil aqli min xayin wa afaati gàkk-gàkk mbewte moom da ci muccal koo xam ne ku am xel la moom alquran waaye nag ku am xel la wax kon da ngaa amoon xel tay jëfé sa xel mi nga yor so bëggé yegg ci yalla itam alquran mom ngay japp bo jappé leneen luddul dul alquran rek alquran di sakku da nga bëgg yegg ci yalla sunu borom faqat faatoo xablu wisaalaati buum gi nga warona japp bayyi nga ko tay ji masalan bo doon dem tay ji Toscana dem jël terrain bo xamné tane Bergamo la jëm do do, jàll di do yegg lol nang moy nga bëgg yegg ci yalla japp leneen luddul dul alquran foog nga alquran xasida naam baax na am na solo lool boo ko jàppee am na lu muy ngacc ci yow nu muy dindi ci yow bu baax a baax di defaraat sa jëm ji te doo ko yëg waaye boo bëggee yegg nag foog nga jël alxuraan boole ko ci mënut a ñàkk kon képp koy jàng xasida itam war ngaa bàyyi xel ne boo bëggee yegg ci yàlla du xasida rek ngay jàpp déedéet waaye alxuraan da nga koy jàpp da nga koy jàppaat fii mun te feru ijji feru dara balaa yàgg mokkal wakaan a xam kooku bu bu góorgóorlu woon dara moo ko sabis ma <laughs> wakaanaa xam gënt gënta yomb sabis ma defe naa ne waaw saari ndaw yooyu ba góorgóorlu woon rek mën koo mokkal kon loolu di lu bàyyi xel na ñu toll jamono joo xam ne nag demee ne lii jar na nafaraat ndax ku jullee wala yu mel noonu te loolu ñàkk xam moo koy waral ñàkk xam gu wér moo koy waral waaye ku xam xaside li muy jàngale ndax li may wax ni mi xaside yi ñu kuréel mi nga xam wa man yarum waslatan lillahi munsarifan anu faqad fatu xablil wisalaati boo ko fa bàyyee doo dem loolu lu jar a bàyyi xel lu tax muy foofu benn dëng-dëng gu ci nekk moom alxuraan li man yasiru ila monti raqibat boo bëggee dem ci yàlla rek mooy buum gi nga xamante ne amul benn dëng-dëng moom alxuraanul karim alxuraan nag sëñ bi daf laa wax ne boo koy jàng am na yu ca nekk yooyu da koy bàyyi xel ñeenti mbir a ne boo demee ci amat ba tëkkoo amrun wa nahyun wa waadun wal waidu maan xad usbirat fii irshaadan lil xayraati yëpp li tax yàlla def ko mooy dalaa bëgg a jubbante la pour nga jëm ci lu baax boo gisee alxuraan ne lii lay digle nga jaar ci lay di digle moo tax mu wax ci masalikul jinaan ne kon alxuraan loolu ci nekk ay tere boo gisee alxuraan ne lii lii bàyyi leen ko nga daal ci teel a pare boo gisee alxuraan tamit joxe ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خم نقول ابران ديولا لين لان موي تخ nga بوك تي نزلا نغو جنات الفردوس جا دونك دا لم يكن لا يوي نون تك يوي بوك دي نفر بو باخ ديكو ستانتال داي ام لوي ديف تيو مان كو باي خيل بو باخا باخ موتا مان القران نينت يوي تي نك امر ونهي ووعد والوعيد مهن يي يب نتاخ يالا داف كو موي داي اورينتي خات اسبيدات في ارشادا للخيرات pour nga mëna jëm ci lu baax su ni no mi tinki noonu tamit indi njëriñ da ngay am may du jeex sëñ bi ci jëmmam moko waxal ba mom mo wax ni fama yudim xasdu wa cillaay khidmatu fa inna sawfa yuxda bil atiyat ko xamne da nga sax ci di liggeyal alquran léegi yow da nga genn ci cadre diko jang ak seetantar way da nga dem ba djublu alquran diko liggeyal koku neena su liggeyal alquran alquran tamit sëriñ wax na yan résultat nga cay amé bu ñëk da diglé won waaye kiko japp yeen resultat day am bu la nexé man na la kon bàyyi seigne bakke yamale ko fofu bu ko defé nga ñew ci ki nga xamne mo japp alcorane alxuraan ba léegi itam yan résultat la cey cay jëlee euh jërëjëf. jërëjëf euh, seigne Matar wax deug yalla ma sha allah euh sëriñ bi waaye di ay alxuraan yi yoo xam wax yalla yu am solo yo xamne yu leer nañ seigne Matar. Euh, kon batay tey mbokk rek ñuy bàyyiloo xel euh, ñi ñuy top fi ci manam Touba Monde bi TV sax ak mboolem ñi nga xamne rek ñooy site internet yi. ñi ngi fii ci Touba Italie ci Milan ci bisu xasida yi ci treizième édition bi ndigal li nga xam ne moom Serigne tubaa joxe woon ci alxuraan ngir soññi jullit ñëpp rek waaye rawatina murid ngir ñu sóobu ci alxuraan li nga wax sànq am na solo lool waaye dafay mel ne kon loolu dafa dem ba jural Serigne bi euh, lépp mu dàq ko moom far féetu alxuraan kese ak hadis ak yu ni demee ndax gis nga fu muy wax naan kan si kitaabu wala hadis wala wax dafa mel kon mom buñ ko doon wax buñ doon wax serigne bi moy li gëna ci am ñoo xana jamaa ñi or ñi alal ñi ay bien ñi ay entreprise waye serigne mom moom deug deug deug deug leral nako na ko bind muy alquraanu karim ah, ak hadith lolu am solo solo serigne matar kon dafa mel kon ginaaw serigne mom lolu la jël ko ne moy alalam kon ya xana kon kii ki liggéey alxuraan tamit kon koku japp na kon koku warna am tamit ab résultat ci jëmmam yaakaar naa sëñ Matar waaw ndax bu fekkee loolu mooy alal sëriñ bi te li fi nekk ci lu nit xam bari lool te ñu bëri jël leen muy seen comme ne wax daal wax ne kansil kitaabu wal hadis wal adab la cité alxuraan ak hadis rek la jël <laughs> di wax ne laa jëm fi leen waa jëm sab kon mel na ne ko lise kon yow nekku ci yaakaar naa sëñ Matar kon jàpp naa ne kon loolu kon dina waral ne kon kii yëngu alxuraan di ci liggéey guddeeg bëccëg moo xam daara yor la du ñàkkoon benn résultat boo da koy am ci moom Matar. ah jërëjëf sering Mbacke Ndiaye macha allah li nga indiwaat am na solo itam ah, li yéeme ci mbindum sëriñ bi rek mooy lu mu la wax firnde ji day leer naññ ci ay jëflanteem. maanaam trésor alquran ak xadis yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye laa fiddatin juguma ngir dajale alal xaalis wala jëmu dahab juguma ngir dajale wurus itam juguma ngir dajale jamaa itam loolu dafa moom ndekete ku masaana indi ci moom dara loo masaana indi lu mu foor foor dafa am wàccuwaay lool dafa am wàccuwaay waaye lan ngay indi nag am fa wàccuwaay muy alquranul karim boo ko joxee itam ñaari loxoom la koy daal di téye kon bu ne kan kitaab daa neex a gëm bari woon teew jaay mooy seen moom ñoom mooy seenu dund ma saje cité ku mel ni sëriñ Baye sëriñ Mor Mbaye Cissé sëriñ Ndiass Cissé nga xam ne moom daanaka ci bind alxuraan rek di ko jox sëriñ bi ci la daan teddee ba bis sëriñ bi tamit mas na koo booleek sëriñ Massamba Diop Sam ah, dama jox ko leetar bi wax ko wax wax ko yeneen juróom moom sëriñ Massamba Diop Sam ne ko màkk barkeeloo ndigal li nga gis kooku ni mu daan tere la alxuraan ba ay ñi nga xam ne ñoo koy topp xam ko ci ba tax kum ku ñew ngir alquran rek dañ lay daal joxaale addiya laa jamaa fiddatin juguma ngir dajale xaalis loolu it wane na ko ba léegi xayru raasixin di alquran di wax sëñ Tuubaa da ko firndel ndax lim daan joxe ba tax sëñ musa Ka nan ko bëggul wurul bëggul khalis gile maki ki maki sama ki la daan jox daan jël jox naari gànnaar ya ta moone bim fi jige ci lahir buñ doon calcul alal ji jamono yii lu bari la fa defaani loolu dana neex a gëm ba léegi naar gànnaar itam daawuñ jukkëram ngir xam gun xam ni bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu masaana ñëwee bu ñëwee mu jox leen seen wërsëg bu mat sëkk bu masaana ñëw tamit di wax ñoom ci alquran xam naa toogaay ba yàgg na mu daane ko in haulaay yuhibbuna al aajila ci alxuraan la ko wax de sëriñ bi ne ko man kaana yuridu al aajilata ajjal naa lahu fiha kon su ne kanzil kitaab loolu day neex a gëm itam ba léegi loolu day neex a gëm ba léegi xam ne ndigal sëriñ bi ne képp koo xam ne toogal nga ma Tuubaa di jàngale alxuraan danaa la defal loo bëgg rek maa cay taxaw kon ñooñu it résultat génn na ci ñoom alxuraan génne na ci ñom bu baax ba alxuraan génne ci ay résultats yu yu kawé mara sëriñ bi wax ni wa man yakun fi jamii daari mu'tasiman mu'tasiman képp ku ngoy am ñata ngay gis tay ji masalan ño xamantene bi ne dañ lay nuru cheikh wala ñu nuru ño xamantene bi ne dañ leena cheikhal wala ño topan ku baax téerit way alxuraan jiñ japp di ko ba yegg ci fa sori génn ay kangam kang for yu ne mo waral ñu bokk nak min ahli wilayat bokk dug ci li sëñ bi wax mara sëriñ bi ne wa man yakku fi jami mawlaa bi jannaati moom mooy bungu dëgër gi nga xam ne képp ku ko jàpp rek la da ngay texee moo tax Sëñ Tuubaa mi ko jàpp moom moo firndeel ak texeem ci ay mbindam moo tax mu ne saadati bi xayri maawin kutibat wa kawniyal abdal xadima xat sabat loolu jàpp kum jàpp ci alxuraan moo ko ko may moo tax ku jàpp ci waaye taxu adduna itam ëllëg yowmal xiyaam adduna dana def alxuraan dana jëflanteeg yow moo tax mu ne waman yulaasimu fi duniyaawi jaadalahu yawmal xiyaamati bil bushra wa xibbutaati képp koo xamante ne bii da nga taqoog alquran fii ci àdduna ëllëg alquran dana daal tabeeg yow dana la ba léegi te bu ñu demee ëllëg yawmal defe naa danañ gis ne sëriñ bi jàppoon na alquran bu wér a wér loolu it di lu am solo waaye niki non te waman yulazimu yatlu dahra nusqatahu maa tadabbur yathbat bi sanniyat lo am solo ngi non ba legi kep ko xana nga takko alquran di di ko jàng nusqa bi ay bo jang setantal ko mo gëna kawé fop kamil bo jang setantal ko sene da ci am solo mo tax sëñ na yasfar bi sanniyat da nga tuuf ci ay yëkëti ko moy ni ngay setantal alquran ji nit man na jang lu bari te du ko seetantal mën naa xam-xam bu ne yow setantal kawe ndax yàlla suñu borom ku la ko gën a xam rek gën na koo waggar gën na koo ragal gën na koo week loolu mooy yasfar bi zanniyaati waaw waaye noonu la demee it safaan ba itam noonu la mel ko man yemil anu fil awqaati mu'tazilan fa innahu saddu kathru rathilaati képp koo xam ne dafa teg yàlla jërëjëf euh, jërëjëf euh, Serigne Matar muy lu am solo nga xam ne eh, indi nga lu bëree bëri doo wax yàlla lépp dafay tënkuwaat ci biir eh, mbindum sëriñ bi li ci gën a yéeme sax mooy tey dafa mel lépp li ci xes diin gën a miin xam ne ay madongo ci la nekk ci la jëm dafa mel ne ci koy gën a génne sax ci majaalis yi mbokk yi ñuy bàyyi xel rek kon ñu leen di gën a fàttali ñoo ngi kon ci Touba Milano ci bisu xes day rek ànd ak si Matar Sey bokk ci ñi nga xam ne ñoo yore commission culturelle bu kuréelu xes day fii ci Touba Italie moom nag mu féetee section bi nga xam ne mooy Touba Toscana sëñ Massa xam naa kon tom boobu rek xam naa moom ci ci ci ci ci murid yëpp rek ngir ñu jàng alxuraan ndax alxuraan dafay doon loo xam ne euh, dëgg la comme ni nga wax sànq xëy na ñu bëri dañuy jël benn xës lu mel ne wakaana aqan wala xay ne benn xës bu leen soob rek def yi tëju réeréeré ba mokkal ko te wax dëgg yàlla nag alxuraan doon loo xam ne moom moo jiitu waaw moo jiitu ndax ku xool wax dëgg yàlla néew na ku ñu xam koo xam ne def defe na ko noonu yi ci biir alxuraanu karim waa ndax ki dem ba saña a maam fëgg dënnam ne yàlla moom loonam alxuraan waaye yëmu ci sax dem wax ne radiyallahu anni wa rasulu wa ahlu badrin wa ataani soolu kon kooku kon loolu wax dëgg yàlla lu kawe dem na sax ba wax na sax mooy sama docteur ci xis googu ñu doon wax sànq ci yaa kitaaba karim boo ci doxee tuuti danga gis mu wax ne mooy sama docteur mooy sama wéttal mooy sama àndoo mooy sama lépp ba ci assur bi nga sànq dañu wax ne alxuraan moo ma doon protège si tukki bi nga xam ne doon naa ko tukki ci sama biiri noonu loolu kon alxuraan kon mooy li nga xam ne kuy yaakaar seelu xaddim te muy dëgg ci yow te pas-pas boobu di dund ci sa yaram alxuraan war nga koo joxaat beneen wàccuwaay wàccuwaay boo ko joxoon tamit war nga koo gën a joxaat wàccuwaay bu ko gën a kawe ci def ko muy xidma xidma bi ñuy murid di faral di wax def alxuraan muy seen xidma comme boo xoolee am wax naan siraat yi siraat mustaqim la yi bii lanaa usimtu mi ne ak daa kal mayd wal xas yi kon noonu mu doxee ci kaw gaa yu baax yi ba dem ba àgg fi mu àgg suñu borom la ko ko may alxuraan la la ko ko may alxuraan la te da ko da koo jàppe woon xidma muy liggéey liggéeyal suñu borom subhanahu wa la waaye nag awe ko ay ay ay kàddu yoo ci mbëgg a dolliwaat ci ci ci tomb ñaareel bi boo dee ñu mën a jaal si ñetteel tomb bi sëñ Matar. waaw ah, jërëjëf sëñ Bakke xam nga sëriñ bi moom ni nga ko waxee léegi jàpp gi mu jàppoon alxuraan alxuraan tamit bàyyiwu ko da koo jox ay jëflanteem tamit résultat yi da ciy daal di feeñ fi ne boo demee ci xasida jës bu rek. waxaan na ci lu yéeme ca jeexal ba ndax wax na ko ne ko anta sabili wal anis anta sabili am na lum ko résultat yi mu ko jox te lépp ci benn xasida benn bayit wér la ko tënk lii xutta faayiqal maqiis jox nga ma lu kawe lu mën a calcul maqiis lu ñuy xiyaas jox nga ma loo xam ne mënee su koo calcul lii xutta faayiqal maqiis bi xidmati maa ngi ay waaye ci liggéey yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu kayisi bi fi mu ne alxuraan boo ko masaan a jox rek bu ko tegee ci nopp xam arafi dañuy wax dañuy wax ak moom. ma tax mu ne na ci xasida mi naan baal xadim liya busharaatil urufi turra wala tuwaji illa yadurra araf araf yëpp ginnaaw loolu la nag moo waral gis nga ki ñëwoon ci dana sa kaam bi de wow na lool ko si Abdullah di faral di nettali waaye fa fariqan kadabtum wa fariqan taqtuluuna fa fariqan kadabtum gooye surtout Baqara nga fàttee Sidda te ban ubbee kaamil ba loolaa fa nekk kon lil bu saaraati wala fi turaa day ñëwaat foofu wala tawa ji illa ya duraa kon sëñ Mbacke day mel ni kon mën nañoo tey ñetteelu xalifa Seexul Xadiim sax loolu <laughs> am na waxtaan leeral na ko ci daag ci daane wallaay sax bañ ko ubbee noonu rek la demee kon wax dëgg yàlla muy loo xam ne lu wéewee si mataar jërëjëf kon xam naa kon dañuy njëkkante wax si mataar rek dugg si ñetteelu tomb bi incha allah taala muy ginnaaw bi nga xam toppaatoon di ndigal li nga xamne mom la Seexul khadim joxone murit yi war len ci ga ci alquran wax da nga nitimit ay ay ay ay dalil yu am solo wax dëgg yàlla te lepp rek manam teungu ci bir alquran ak ci khasde khadim yi kon ñu da tàmbali ko ñaar duggu rek kon li nga xamne nak nag war ci jang alquran dama ba xam euh, nuñ ko meuna jangate sababu yi lan la damaa xam ba ak ak ak ak ñàkk tawféex laa koy tuddee wala xëy na ak ak ak waru lay doon ndax nit ki mën naa ne si dara jàpp ne lu baax la ba fàttali am nekk ci mbir mu maanaam maam yaakaar baax na mu wóor na la de <laughs> baax na da koo da koo gën a wóor kon loolu ndax boo xoolee ci xes di nga dugg sànq ci ama Souleymane yaakaar naa am na fu suñu di waxee naan kaanat mawaa'idu wal xuruubin lahaa masalan maa mawida ne xëy na urxub defoon na ko xëy na benn mbokkam boo xam ne ko mayoon ab toolu tàndarma banam demee yaakaar naa ku xool da ko ca gis e, ci agoor goo xam ne waajam ko mayoon mujj na am ca goor ca tool ndax ñëw na fekk fa dara ndax xëy na urxub may na ko gannaaw mu xemmeem ko ñëw def nam def kon kooka warugoo ko daloon damaa xam ne ba xam warugoo xëy na moo dal ñu bari ba alxuraan ji mel ne ñoom të inwaan lu am solo muy li waral nit ki ñaaral di sawar ci jàng alxuraan yooyu fii ne buñ ko doon laaj danga naan loolu nu mën a nekk ah loolu ñàkk tawféex la rek ngay wax waaye ëpp na loolu yoo xam ne ba tey xasi mi ngi ci rek gii ma doon waxtaanee ak yow léegi muy Hamad Souleymane mooy boo demee ca jeexal ba ba léegi sëñ bi indi na fa juróom-ñaari yëf xam ne sëñ bi nee na koo gis jàngul alxuraan rek juróom-ñaari benn ko teree sawar jàng alxuraan jurum ñaari bir yo xam yu jara a xel la moo tax la xasaat daa juróom ñaari xam ne alquran do do ko yomb te juróom ñaari ben bo ci jël fa gis man na galan ko ni ko bu jang alquran bam la njëkk a limal moom mooy dan bun bakar sëñ bi dafa laa wax ne bakkar bu xasse ne ci nit deud alquran da koy yomb lool ndax bakkar bu bare ci bare ci xol day mujj tomb yi mu def yaangi ci wala absan xishawa waliyaadu billahi nit ki bu xasee dugg foofu toog fu ñuy jàng alxuraan sax da koy da koy déranger waxuma laa nag mu yorub jukki naan day jàng alxuraan kon san bun bàkkaar day waral nit ki du mën a jàng alxuraan wa kibrun rëy rëy day tax nit ki doo mën a jàng alxuraan ci àdduna teggin yi alxuraan di laaj ngir nga mën a jàpp ba sell la lalo su yaada jublu penku ne loolu ku rëy ku rëy mënul loolu moo tax mu ne la ba kibrun ak rëy rëy nit ki boo ko defee jàng alxuraan da koy jafe da ngay jàpp ne itam yow moo tax rëy day waral nit ki du mën a jàng alxuraan nit ki noonu wa israarun ala laibin nuur ci am fo lu doy waar a ngi noonu yi loo xam ne dafa mel ne suñ bëgg ba mu koy wax daa mel ne tey jiyee taxoon mu koy wax fo boo ci xasee nuuru ci jamono ji ñu toll wax ma la jàng alxuraan waaye yow xasiida jàng ci toll foo xam ne fi mu ne foo mu jeex rek ma neen foo am na fi ne été bu ñëwee fomm yi ñuy indi nga war di ko suivre boo ci bokkul di nga ko suivre ci télé yi ndax fépp lañ koy wane même boo mu télé sax léegi Iblis nee na léegi yow jëratul ngay dem ca saal bi sa daan man mën naa la ko xëccal ba ci sa néeg bu njëkk ordinateur la daan xëccal waaye déet léegi daan la sa téléphone laa la ko hiver bu ñëwee am na foo yoo xam ne moom rek mooy am yooyu nag ko topp ñaareel dootoo jàng alxuraan israr bun ci kanam tuuti fina da nga deg ñu ne saison lamb ji ubbi lamb bu doon noonu nit ki day setan ñetti minute wala ñent minute yi seug bari rek mën a wax do jang dara motax isra ala la lang dafa doy war fo motam tax mooy tandiku lool xubbun li dunya ñettel ba mo moy bëgg aduna bëgg dafa doy war boko xasse def yow sa calcul yep mi ngi jëm ci alal ji nu mu yokkoo ak donte da nga bari al lol nit dafa am ay milliards fi ne ñaar milliards ñoo la gëna a fi ne compte limi wër wër wóor borom alal day tok fi mu tok di calcul kontam kontam ko ku mel nonu xam ndi dunya do do mëna jàngate alquran fi ne lo bari bari bo gëna gis auto bo amu sax ne dama ko wara am <laughs> kon kooku da tala jang alquran xubban li dunya daawun wa siinatun wa tafaaxur wa takaasurun fi lam wala lat marah ubun dunya yi mo waxoon yeb day dugg ci bir waye tam i'tiqadun lil qaliqat nit bo doylo wut yalla di sukkandiku ci mindeef do tara jang alquran da nga japp ne dal dal fa la ko lo ñaké mindeef fa la ko tek pour yow bo ñaké sax fa la wara dimbali kum nek ci yow tamit jang alquran dootu la yomb ni da ngay sukkandiku ci yalla bo sukkandiku ci yalla da ngay japp ne bo ñaké rek war nga mëna jang alquran alquran alquran la sam xel kon loolu kum nek ci yow rek day mel do mëna jang alquran do yomb xamna melni ñi ngi eh, noddu wala faiblesse sa conscience faible day war a nit ki du du mën a jàng alxuraan waaye fi ñu toll nii sa conscience bu fekkante ne dafa dëgër ci yàlla sunu borom da ngay jàpp ne yow alxuraan ji war na laa mën a may lépp loo bëgg kon loolu ku mel noonu it du mën a jàng mara sëñ bi mi nga nañ moom zahara li zahara yaqina xal bi baada rabbi wal ko waxee ci minanu bayil xadim kawna rasul rasulullah yaqina qalbi ba'da rabbil kitab sittu qadim moo sax sans itab dafa am conscience ci boromam ku melu non nag jang alquran dut lay yombati buy def lu gissa yakane mo gën alquran do do ya jang alquran kenn dem nan ba jamono tol na fo xane setan seytaan dugg ci xel nit ñi ne leen xasida gën alquran da ngay dégg ku ko wax qasida mo gën alquran loolu moy bi taksir ibtidaat bari ay biddaa xamna ko melena nod nan ñu wajal waxtu wi inshallah kon mel ne nañ rek ñu ngi noodu sànq rek li nga xam ne moom mooy julli tisbaar gi xam naa ne dañuy sant bu baax di gërëm rek xam naa ne di la jox xam naa ne maanaam di nga daje xëy si kanam takkusaan incha allah lañ doon noodu sànq euh, di waajal waxtu salaatu asri incha allah kon xam naa si mataar rek ñooy sant baax di la gërëm xam naa jox sa kàddu mujj rek xam naa jox sa kàddu mujj moo di bisu xasida Touba Italie édition 2017. ah jërëjëf sëñ Mbacke kon ñuy ñu ngi lay doolee santaat bu baax a baax. dila dole doolee jaajëfal ci dalal bi nga xamni ni dalal ko ñi ngi jégalu mbolam li nga xam wax nañ ko fi rek te jubut di ñaan lepp lo xam wax nañ ko ko ko ñaan fi wax ci bis bi ñu yàgg fekke ngeer mom li nga xam mom rek moñ ko tax di def ñu am ko ci barke Serigne Touba jërëjëf Serigne Mbacke jërëjëf euh, serigne Matar kon mbokk yi rek kin doon dalal sank rek moy serigne Matar Sey bok ci commission culturelle bu bisu xess de Touba Italie fi def Touba Toscana waye nekk kenn ci membre yi nga xam ne ñoo ginnaaw buñ jullee li nga xam ne mooy julli takkusaan pare rek ak yeneen mbokki taalibe yoo xam ne danantee bis bi ñii di ay borom xam-xam ñii nekk ay jëwriñ ci kuréel yi ñii nekk ay jëwriñ ci délégation yi nga xam ne ñoo jógee ci mboolem àddina sépp di teew si fii nga xam ne moom mooy Touba Italie ci édition 2017 ci treizième édition bi incha allah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إن يخاذب النصارى في أرضهم لمالك مصرى إن يخاذب النصارى